Forza ma yaakaar kër Pape Mayel bu muy garde ci buntu bi Pape Mayel bool añ bi mu koy jox moo neex. ku la wax day garde. non moom tenue bu tenue bu tenue bu verte lay sol ma ma koy gis. yow yaa gis tenue bu verte day garde Pape Mayel kii Forza garde ñee dépôt gaz la man du ma daan di rëpp damay bëri amateur yëpp kontaan moom mag la 2007 ba léegi mi ci làmb ji dégg naa ko man bu bëree man damay duma. billaahi wa kitaab su ma bu ma duma ko moom day bëre ginnaaw mu fay Abdou Diouf pour am ndam. forsa waaw. nu mu ko fay. non waaw may irigo gërëm rek gërëm seconde ko dama lay jàppale pour nga daan. góor li na de. non loolu moo am deuxième mois bi mu bëgg a fayaat nees. man mi xam ne kenn fayu ma su ma liggéey amateur dañ may xaar dañ may xaar pour ma am ñu bëre bëre combat bakkan ma jël. yow Mbadou Mbadou bokk ci ñuy fay di la daan. mënuñ maa fay père Bam père Bam fi ne Abdou Ndiaye Ousseynou Laye Bos Adama Ndiaye sama pote sama mboor mboor a fay man gaw ma àndu xaalis ñi may àndal xam nañ ma man gaw ma ànd ak nit xaalis dama ànd te yàlla tax man topp ma kenn ki xaalis boo amee million sax nu ma jaar sa kër waaw. mais lan moo nekk sa diggante ak Forza. sama diggante moom mooy ñu war a bëre ma duma ko daan ko moo ci nekk leneen nekku si. xeex xeexkat la nee nañ nee nañ ku mën a xeex la. kan la Forza. ñaari bëñ kanam yi laay dindi buñ bëree. yee. kuréel li ngay wax nii mbaadu micro bee neex nii rek wala. barki sëriñ Saliou buñ bëree ma daan Serigne Saliou laa la gi ñaan mais foo teg li ngay wax nii da nga ko ëpp doole da nga koo dàq gën a doon xale força bu solee bul sox na ñëw isaat buy dox day du laal suuf ngaan lan tànk dafa baax força dafa bañ ba buy pare combat day wuti ay partenaires yu koy contact ndax danaan day gaañu man wutuma partenaire ay ponkal laay contactal sama koñ taxaw mais yan partenaire moom Fass la nekk ay waa kër Fass waa Fass lay Fass la nekk di benn booyam lay wala mu dem Thiès xam naa fi mu entraînement Thiès. fan ci Thiès. foofu góor xam naa ko dama foofu laa koy góolo man fépp xam naa ko de man Dakar gi laa dëkk. Ah. waaw moom nee na yaay adversaire am na moom mooy sa adversaire face. non Serigne Ndiaye de li may fayee nañ ko ko ci fay maa ngi na bu doxee ñu war a bëri dinañ bëre mbër bu man naw loolu yàgg nañ tey maam di a bokk science entraînement daf lépp man waruguma bëreeg moom bëgg dem laay faram bool yee am a bëreel su bëggee laax waaw ndax doo dégg benn amaat di ko waxtaane moom. sa digganteeg waa Fass lan la. sama diggante waa Fass mooy man fédération moom fay dama bëgg a tas waaw. nee dañoo bëgg a. Forza dama ko nawloowul man. luy problème mu góor a soog ak waa Fass laay laaj. Forza na nawloowul laa la wax dégg naa ko man damay duma. billaahi wal kitaab su ma woon defal fu mu nekk ci géej gi maam ñu daje fa. barke Serigne Saliou man benn góor mënu maa duma. Cobra dégg naa Cobra moom nee na fayu la bëgg fayu. Ah? Cobra. ah bi nga daanu. ah fayu la bëgg fi mu nekk. mais garaawul boobu xam naa bëgg na jël franc na ko jël xam nga am na lu ko fi xaar na jël franc rek waaw mooy loolu. mais dafa dafa maanaam dama gis seen diggante ak Fass côté parcelle mu xaw a metti trop trop actuellement nii. metti bi mooy saa bu ñu bëri ñu daan leen rek mooy metti bi ah saa bu mu bëri ñoom dama leen daan man. kan ak kan daan waa Fass parcelle. non man mosuma bëri waa Fass mais samay grand frère bëri na fa Garga Mbossé yóbbu naa ko Modou Lo yóbbu naa ko mu daan Gris Bordeaux yeneen combat mu yóbbu mais mu Gris Bordeaux maa ko yóbbu Garga Mbossé maa ko yóbbu daan na sos yóbbu naa mu daan Balla Diouf kon du nenn sax mais damay dégg seen wax man buñu dee teg plan nañ ko teg fee man ay ñu mu yàgg bëri laay toogal kenn mënu ma teg plan de su ma ñëwee stade ba takk sama ngeen ma ñëw ci géew bi di xam ne man kenn ma teg plan força gi dinaa wax gum nekk ci xeer brise de mer bi moo neex fam ma waaw man de fam ma yóbbu woon géej ga moom sedd moom billaahi wallaahi taala bu ko joxoon cinquante millions bu ñu ësaan ma daan ko moom cinquante millions ba pare lekk cinquante millions billaahi lekk cinquante millions su may ñëw di bëre moom sama xaalis laa indi un million teg ko ñu ko ñëw ñu bëre ku daan jël ko sama xaalis boobu moom mu teg moom du teg dara kon daal góor a Fass Papa la fa bàyyi man waxuma Fass na ñëw ñu bëre mais force dama dégg interview am bëkk démb ma xamal ni ko man ndaw na ay 35 ans 36 ma nekk ah ñaata as pourtant bëri laay ñëwoon maa ngi dëkk bi di sàmm fo fii la booy kii jàpp joroon bëgg démb xaw ma da ko kii xaw ma joroon waa ji plaque fii nu mu mbuur laal ko fi tànk yi mu jaxasoo bim ndamam lu am ci waa ji dëkk Lamsaar nu mu tuddati si beratuwaal da ko lijjanti daan na ñetti yoon ci diggéew maa ci isaat bi saabu plaqué rëpp ba dënn bi tegu ci saako bi Pam Mayel gis naa ko muy fay mbëri man mënu ma fay suñu papa la ñu koy nuyu. li ngay wax doyul waaram. non kenn mënu ma fay man damay. ay mbër di leen daan. Abdou Diouf dañ ko fay gisoo temps yi bu toogee télé Mayel Pape Mayel ah loolu dara. seet yeeg affaire naa Lamine Samba sama grand la. ñuy kurkur la ku daan Ama Baldé daan Elton daan Papa Sow mi champion nga man dama nangul ni champion am Lamine Samba moom xanaa moom dama yaakaar yoonam newut ci la moom pour animateur télé la rek non sama grand la rek mais xam nga Ndakaaru moom ñëpp ko xam Ndakaaru gis nga ne champion la man dama ko nangul champion am ku daan Papa Sow daan Ama Baldé daan Elton Ponkol bi dama ko nangul champion man nees ah mais dama mënul comprendre mbër boo xam ne daanoo fi mbër yi ñu fa daan 99 la noonu bëre ba ba instant amatul mbër bu mu daan bu nekk ci bu nekk ci làmb ji força mbër bu nekk ci làmb bu mu daan amul non non. ci yow. maa ngi sant yàlla baax julante bi di sant sama ñaari waajur di sant Abdou Ndiaye sama rek day sonn ci man Bas laay Asoy laay Père Ba. ama ah Eumeu Sène tëj na këram. fu mu dem. nee na nee na tey maanaam da koo tëj ci li ñu jàngat. ci yëglekaay yi. pour fas yéene jëflanteeg Modou Lo jëflante bu metti xama bëre du coow. bëre ci digg géew la. te gis naa moom mi ngi sunu grand frère ñu ngi koy nuyu au passage. mais na xam ne ki muy bëreel borom jom la jàmbaar la. saa bu retourné chaque jour bu retourné day indiwaat yeneen facette. Eumeu it bëri na jom de. waaw bëri na jom ñaari borom jomay bëre. mais xale bu amee jom di bëre mag bu am jom mag bu am jom bee war a bàyyi de <laughs> waaw.